nañ ko ba taay di leen musóoru. jël muuraay jël muuraay ji nag. teg ci teg ko ci kaw. sëriñ bi wax na ba tas. sëriñ bi wax na ba son moo tax ma di ko wax. moo tax ma di ci wax. ndax moom moom daayira moom daayira yi moom moom moom mii laa rakam ak mag ñii ak mag leen ci góorgóorlu ci nuy jàppa di julli. nuy jàpp di julli. dégg li mu lay wax ci dégg ngeen li mu lay wax farata. te baayam. te baayam. bi mu laata dem bi mu laata dem. woon a ba mu woon a bàyyi dun ba mu ñëw. ne ko kaay bindal ma. cangaay li. ne ko kaay bindal ma cangaay li. sama baay digle. li sama baay digle. ma wesaare ko. ma wesaare ko. daana ñëw si jàkka ji. daana ñëw si jàkka ji. li wax mel na. mais jàppal ma gis. mu commencé def suñ commencé defam mun ko mbërëf diw diw defaral waay defaral waay xalaas diw diw defaral defaral waay ah, yow de mën nga tuuti yow de mën nga tuuti eh, jëlal sangaayal farata yow jógal di yow jógal di sanguwaay farata sangaayal farata xalaas xalaas ndeket yow setu la ndeket yow setu la su ma yëgoon du la jox loxo su ma yëgoon du ma jox loxo loolu wut ci jàkka ji loolu wut ci jàkka ji ñëpp rek ñëpp ni sagg nag ba mu yàgg mu ne xool leen ba yàgg mu ni si gétt ni xool leen ma ma wan leen jàpp bàggal jàpp bàggal leen ma na ni xool leen ma cangaayal te cangaayal farata la ndéem yon ko yàlla boobu moom mooy def loolu mooy def loolu càkkata baa num sobe yëpp sobe yëpp mën nañ ka ci jigéen ci jigéen mën nañ kaa lekkaale mën nañ kaa lekkaale mën toggaale ba mu des sobe sëy ba mu des wax leen ko sànq pare rek dem sangu ji pare rek dem sangu ji. looy def nga door looy def nga door ko def. tey tey itam ku ci am jabar ku ci am jabar. nan